mbirum mbalit yi nga xamante nag ci kër yi la ñuy bàyyeekoo doon na li nga xamante nag saafaraaguñ ko fii ci Ziguinchor boo doxantoo ca boulevard des 54 mètres ca quartier Néma 2 yooyu la mbalit nag di nga ko seen ci kaw tali ndaw bii di Mor Talla mu ngi ñaawlu lu ni mel. c'est pas jaadu quoi ci mbalit mi ko di ko ak santé bi baaxul si ñun baaxul ci suñuy frère baaxul ci suñuy yaay ak suñuy papa tamit. sonn nañ ci quoi. trop. waa koñ bi ñoo ko fiy loolu jaaduwut tamit maanaam ñañ dañoo war a bàyyi xel bu baax ci loolu noonu ndax lii moom rafetul. Oumou jàlloo di ab benn soxna bi nga xamante nag mu nga dëkkee ca quartier Néma 2 këram jege lool boulevard des 54 mètres moom nag mu ngi xamal ni ki ay nit ñooy bàyyeekoo ci seen i gox bu guddee ñu ñëw tuur nag yooyu la mbalit ci ñoom fu ñu dëkk. soo toogee fii guddi nii wala bëccëg nii da ngay gis oto yi di ñëw di sotti mbalit fii. borom vélo yi dañu ñëw borom taf-taf yi dañu ñëw lu nekk dañu ñëw sotti fi yeneen saa si biir la ñu jógee ñu ñëw bee fii. ci biir la situation nag waa mairie am nañ pàcc bi nga xamante ne a ñooy ramasser yooyu ordure nekkuñ fa naka noonu itam dispositif yi nga xamante ne nag mën a def yooyu la mbalit nemmeekuñ ko ba tax na soxna si nag di ñaax. suñu amee loolu moom loolu la ñu gën a bëgg sax laay sonna nañu fii yeneen saa nawet bi nu mu nii xet bi day ñëw foofu sax doo ko mun doo mun fii si tali bi lañ bari xet bi day ñëw bee foofu li ni mel nag lañ nemmeeku ca canal bi nga xamante nag moo jaare Santhiaba bu Kot ak yenn quartier yi nekk fii ci Ziguinchor foofu itam lu weesu mbalit bi nga xamante nag askan yi moo ko fay tuur daañ nemmeeku itam yeneen mbalit yi nga xamante nag kenn xamul fu muy bàyyeekoo loolu nag jur ab tolof tolof si nga xamante nag seen dëkk waaye jege na lool boobu le canal la te léegi boo waxee ñu ne fii moom kenn moomul ko léegi ay xar yu dee ak loolu lañ fay sànni wax nañ ba sonn loolu dañ ko fii bëggu nañ kuñ ci dimbale waaw parce que doy na waar trop trop fii guddi moom mooy loolu gars yi moom timis ba bët set ñu ngi fay tuur ay mbalit bëggu nañ jaag ku ñu dimbale man wax naa ba sonn man man mi nekk fii toujours man fi la nekk mais jafe-jafe bi am fii yëpp